ca euh, université Gaston Berger Assane dañ faa tere am euh, daal euh, am bin bin xam naa waroon nañ cee booleem paccal ndax am man dégg naa ko ni moom yooyu moom mooy problème am xam naa moo dinañu wan li ñuy tere bala ñoo walla lii lañuy ñuy tere bañu ñu jigéen gu takk bin bin bañu ñu jigéen ju takk fer waaye dañuy bañ jigéen gu takk ay bin ba pare cek sa tubéy maanaam wàcce ko ba say xott di bëgg feeñ nga ni ko dagg ca kaw di lapar lappareek dem ñu ne nag ku ko ci defati dina dinañ la amande lu toll ci six cent francs téeméer ak ñaar fukk. Hmm. mbaa mboolem ñi amee initiative bu tere ko ñooñu moom lislaam bu dee si côté lislaam lislaam rey na leen. <laughs> bu dee lislaam nga ci lislaam tey. waaw jaajëf waay. ndax euh, lislaam dala wax ne bul xool même boo boo sànni woon si bët si jigéen sax gaawal tourné bët bi te fexeel ba bu mu delluwaat. Hmm. yow nag ngay ngay seetlu bin bin yi di seetlu bin bin yi ba ne bin bin yi daal amatuma si sago nañ ko tere si sinon duutuma du dama dama yàqal lu bari. waaw mais loolu ba tey baax na. non non baaxut waroo ah. koo xool gis nga son bu hmm, jigéen. Hmm. bu fekkee day takk ay fer. te hmm. bëggul fer yi kenn gis ko jurul muy takk fer day sonal boppam rek lu muy lu muy jariñ ah waaw. fer pour man sa borom kër a ko war a gis. de ñi amuñu borom kër ay élèves lañ. ñu denc ko ba am ko. Ah. dañ ko war a am. kon kay bu ñu ko takk nañ dañu wax bu ñu takkati bin bin interdit nañ bin bin Sénégal. ku amul jëkkër mais fer bañ ko daan takk dafa am luñ ci lu ci luñ ci non non fer yu mag yi dañ daan takk mais bin bin yi yow bu ko bu ñu ko gisee yàggut léegi nag ñi nga xamante ni ñoo ko tere dañoo waroon a tere jiin tere baa ndax la leen yëngal si bin bin bañ tere ko mën na leen yëngal si baa bi ñooñu dañoo feebar rek hmm? comme que nag feebar nañ ba mënuñoo gis bin bin ba jàngale wala ñu feebar ba mënuñoo gis bin bin seetlu ko ànd ak dal nañu terewaale baa baa luñ ciy tere baa bi baa bi moo gën a garaaw bin bin bi baa mi ngi muur na non non baa bi ngay sol mu ne taj sa yaram lépp tampon lépp tàmpe mais fer gi nga gis ko fer nga xamante ni mën ngaa dox dax dal fakkastaloo ko nii fer fer kii la rek fer goo gis ci suuf bokkul ak fer guñ takk ci ndigg ma a maîtriser baa war ngaa mën a maîtriser ci ndigg bokkul ak fer goo gis ci suuf ma ni man day wax dëgg yàlla man fer dara ci man yow man te xam naa ni bari naa ci moroom dañoo war a tere baa yi tere paccal yi ween yooyu ñuy gis ñoom ba léegi xamaguñ lan lañu war a tere si kii la ñuy mujj mooy bu jigéen jàngatee si wala dañ leen song si kii waaw kon nag ñi nga xamante ni ñoo amee initiative bi daal nañ ko delloo fu ñu ko jëlee nañ bàyyi booy te moytu booy te ànd ak sago ñoom seen bopp. waaw nga takk ay ndombo. ndombo yañ takk. Hmm. ay ndombo lañ takk. ñan mooy seen ñoo ñooñu góor ñiy wax. takk nañ ay ndomba mooy seen gàllaaj ñii nag bin bin mooy ne wétali wétali ndomb wétali bin bin. yow gàllaaj ak bin bin nga nga jaawale. takk takk la rek. Eh, gàllaaj eh, bin bin luy luy gàllaajam gàllaaj luy wat bin bin baax na jigéen dafa war a takk bin bin da koy wéttali defar formaam formu yow du loolu laa la wax léegi nga weddi ko nee naa la bin bin dafa am lu ko taxoon a jóg nga ne ma déedéet déedéet a jóg waaw pour forme danga daan gis xale bu judd ma ne bu dangee ab caq waaw caq pour mu defal taay baat bi takkal ko fer pour mu dagg ko jóg bin bin yi moom ñu ko tere nañ si deltu ginnaaw nañ leen yóbbu si yoon ñoom ñëpp ñu ko tere mais l'islam day tere ñu ñu tere l'islam tere bin bin lislaam terewul bin bin de ñoom la tere ñoom lislaam tere ñuy xool bin bin ko génne lislaam tere na génne wuñ ko de terewu leen boo defee nii mën naa feeñ cat nga sànni sa bët gis ko buñ sànnitoon seen boo sëggee fi fer yi nga takk di feeñ ma ne ñoom la ñuy def lépp lislaam da koo bañ muy lan muy muy buddi di paccal baay yi ñuy sol di paccal kii yi ñuy sol lépp lislaam tere seen yi bën nag lépp lislaam tere ñu tànn si bin bin loola ma naqari nañ interdit lépp wala ñu bàyyi lépp. ñu mën six yi ñu leen fayee ko amaan mi nag. loolu lépp mooy caaxaan yi rek ànduma ci te dinaa taxaw combattre nit bëgg a takk bin bin yëpp. si kàttanu suñu baram ma ànd jàppale leen bañ takk bin bind si ni mu leen neexee si réew mi. d'accord ndax dafa am ñu ciy liggéey am na ñu ciy jaay. waaw. Alaaji. Mm-hmm. Euh, bin bin daal boo sàggantul foofule euh, dooruñu ko fa takk wala ku ko mënta ñàkk takk di nga ko nëbb ba dellu sa kër. wala lu mooy di nga fay 600 francs ca euh, foofu la nga xam ne mooy euh, Gaston Berger. waa xam nga beneen saa am na loo xamante mën nañ ko contourner quoi. c'est hmm. que soxlawul parfois euh, parce que le fait que ñu ne tere nañ bin bin rek. xam nga li Assane def ni boobu nag gis nga gaa yaa ngi ree parce que ñu ne bin bin bi ñu tere ak affaire yooyu ak gis-gis bi nga xamante ne bi Assane am na ko ceeg yooyu donc mënoon nañu exiger ñu ne. université yi léegi dañuy sol ay tëni nangam mm-hmm. loolu bu ñu ko solee rek bin bin mën na bañ a feeñ ñu sànq ñu. lii ab commencement la. waaw mais c'est que loolu loolu moo gënoon a kii quoi maanaam loolu moo gënoon a loolu ñu exiger leen ne leen léegi université sàngam léegi dañuy sol ay tenue pour ñu xamante te loolu sax mbir la moo xamante ni bi mbir mu baax la. Mm-hmm. Euh, loolu boo ko defee rek contourné na nga affaire bin bi nag yëpp du doo du doo ko tudd sax. Mm-hmm. comprendre nga. mais da ngay exiger ne yëf yi nii lay demee. Mhm. léegi bu ko defee yow éliminer waale nga ay bin bin ak yi Assane di wax yëpp éliminer nga ko ay pàccal ak yooyu yëpp après day dégager. Mhm. comprendre nga te loolu defe naa ni moo nekkoon li nga xamante ni bi moo gën nga ñëw taxaw ne tere naa bin bin ku ko defati fay 600 mm. francs am na ñoo xam ne jaral na leen fay 600 takk bin bin di ma ah, ah, ah waaw xam nga <laughs> c'est que boo fii loo fi teg dañuy ñëw teggi ko mm. donc ah, comprendre waaye laa mën am ku lay fayal 600 booy fayal naa la mm. xam nga day amaat mën na indiwaat yeneen i mbir quoi yoo xamante ni fayal waaw ku la kii ma fayal la affaire yooyu donc yooyu yëpp mën na ci nekk en tout cas daal. mais alaaj sécurité pourtant sécurité pour jigéen ñi la. waaw mais sécurité pour jigéen mais danga koy defee neneen moo tax ma wax la ne la bi ci boppam dañu waroon a wax ne léegi lii la dañuy sol ay tëni defal leen ay loolu moo gënoon defal leen kii yoo xam ne bu ñu ko solee bin bin mënu faa feeñ. ok maanaam ñëpp tolloo ñëpp yam waaw waaw ci li ñuy tamit aussi day nekk mbir moo xamante ni mbir mu baax la nga xam loolu dañ koy dugal ci booy inscrire ak yooyu da ngay fay nangam parce que lii ci la ñuy génne tëni beeg gars yi ñu ngi naan bul yàq de bàyyil noonu ah gars yi dafa mel asal lañ gën <laughs> daal bul yàq bàyyil noonu daal alaaj nag dafa mel liñ bëgg a jële ci réew mi waa réew mi bañ de <laughs> yow kii ni bin bin da koy xeex pour bàyyi ko fi yow yaa ngi wax nu ñu sensibiliser pour flot bi ñu ni noonu sax da ngay yàq <laughs> réew mi ci nu ko defar nag waaw. <laughs> réew mi defar kii de gars yi nag nee na moom yàgg nga ci bin bini lool. ñu indee si sa yàgg na ci bin bini lool. <laughs> ajja waaw gars yi ne 600000 la waroon wala 6000 sax waa 6000 sax baax na. 6000 baax na ñu ne ko 6000 bin bin 6000 loolu kii na. mu ngi noonu toba ngay ree rek euh, moom ndeysaan moom itamit euh, tabarkalla tabarkalla Assane nag yaa wax fii wax joo xam ni fii lañ toog nga ni mas ngaa gis fer ko dagg te tey nee nga. Ah, yow kay fer mas nga koo gis sax yow. fer kay xanaa waaw bu dagg mosuma koo gis. mosuma koo gis wallaahi. xanaa daaw daaw gis ay jigéen. ba taay jigéen ñaa ngi dox nit dem di ñëw. Hmm. day naar fer yi dagg waaye dañ ko tëkkatut nañ ko daan takk rek. <laughs>